jongante faluk njiitum réew fii ci diwaanu senegal ñu war ko amal ci weeru février bi ñu dëkkmal coow li mu ngay tàmbali donte ki fi nekk njiitum réew di Macky Sall du ci bokk lu toll ci ñaar fukki mbër ñoo fas yéene jongante ci biir élection laata ñuy tàmbali campagne bi askanu senegal ñu ngay àddu ci lañuy xaar ci ki fi nar doon njiitum réew. le président bu war a laal ni ko souhaité li mooy naa yërëm nit yi. naay indi loo xam ne dafa day dimbale nit yi les gens sont fatigués ils sont prend que ça soit sur le plan alimentation transport mën na ko arrangé di nag ñoo ñoo arrangé ca beneen wàll wi Mouhamed Diagne di wax ni askanu Sénégal yu am amatuñu yaakaar ci suñu njiit ndaxte bëri na ay dig yoo xamante ne bii dafay am wante lépp forage daal di xëddeem ñu toog seen kër jàpp seen jàmbur moo ëpp ñu nekk ci biti di yooxu oh parce que ñooñu dañ découragé amatuñ fi ñu jëm di ma ni la soo moytuwul élection yi euh, man dama ragal abstention yi mooy ëpp que ñuy voté parce que les gens amatuñu fu ñu jëm xamatuñu fu ñu jëm Sénégal jëm ci jamono ji nga xamante ne dinañu mën a jëfandikoo gaz ak itam pétrole bu ñuy jëlee fi ci biir réew mi laaj yi fi jot samp nag ñu bëgg cee am ay leeral bokk na ci ki fi nar doon président nees la war a mën a def ngir jëfandikoo yi les ressources Sidya Konaté jàpp ni lépp lu mu mën rek na ko def ngir askan wi gis ci seen bopp. il faut un président mature boo xam ne mun na ko gérer boo xam dafa am yërëb ci askan bi. exemple ñu koy ñaan franchement parler doo si les nouveaux ressources yu ñu war a ñëw na askan yi askan bi yéeg fii ci diwaanu Sénégal campagne électorale jëm ci palok njiitum réew bésub ñaar fukki fan ak juróom ci weeru ko février atub 2024 ñu war koo tàmbali ñeenti fan ci weeru février ñaar fukki candidat yi ko fas yéene jogante am nañu ñaar fukki fan ak benn ngir mën a convaincre askan wi